aw la wala kii jege na ma ñi yemale seenu Dakar yëpp ñu xool aussi ku nekk sa place li nga mérito si liste bi ñu def ko pour mu rafet tant plus que aujourd'hui lu ñu soxla mooy dañoo soxla toutes les forces dañoo soxla toutes les énergies pour mën a dañ jëli mairie de Dakar di gis aussi au la de la jeunesse ñi gis aussi ay responsables yu bëri ay kilifa ñoo xamante ne tey au niveau du parti seen taxawaay am na solo ci parti bi ñëpp aussi gis nañu aussi nu ñu leen léser si biir liste bu Dakar donc ñu jàpp ne liste bi mën nañu bañ a jàpp ne liste bi listu Benno Bokk Yaakaar wala listu Macky Sall mais mën nañu jàppane ne liste bi listu ministre Abdoulaye Diouf Sall la parce que ay nitam ak ñu ko jege da ko dugal ñun nag ku ñuy waxal mooy suñu kilifa dañuy waxal le président de la République Macky Sall mu nekk koo xamante ni gëm na ndawoom mu nekk koo xamante ni aussi am na yaakaar si ñun te ñun xam nañ ko raison pour laquelle situation nu mu mënti demee dañuy tey jat nang wax ak moom en plus que nañ ne du mës a bàyyi gannaaw jàpp nañ ne du ñu fàtte donc lu ñuy ñaan son excellence le président de la République Macky Sall mooy tey situation bi ñëpp gis nañ ko bu mu bu mu bu mu jëlee le ministre Abdoulaye Diouf bu mu jëlee le ministre Abdoulaye Diouf Sarr choisir ko comme tête de liste man miy wax ak yéen en tant que en ma qualité de coordonnateur de la COJER de Dakar maa jëkk bind un communiqué féliciter le ministre Abdoulaye Diouf Sarr si ni ko président tapé pour mu jiite de la tête tête de liste de la ville de Dakar et l'ensemble des responsable communaux ñoo xamante ne aussi le président de la République na leen pour ñu doon les têtes étendards de notre coalition au niveau des waaye bu liste bi génnee lañu ñu jàpp ne la ñu gis ne de façon très flagrante parce que tey ñun xam nañu parti bi de façon très flagrante la ñu gis ne fii mbirum xaritoo moo fi am mbirum kii jege na ma wala kii jegewu moo am si liste bi. alors que loolu mënoon na ñàkk parce que tey fu ñu jëm on a besoin de tout le monde wala sax. booy dem ba di yàqal wala di bañ a jël ñu la gën a jege nga war a nga nga war a beddi jël ñoo xamante ne peut-être sax peut-être xaw nañ la sori parce que tey combat bi combat ñëpp la aujourd'hui le ministre Diouf Sarr a besoin de l'ensemble des énergies républicaines et de la coalition Benno Bokk Yaakaar du département de Dakar pour ñu mën a dem jëndi mairie bi parce que du combat bu yomb donc ñun bu mu amee ñëpp xam nañ ne aussi am na ay liste yoo xamante ne ay liste parallèle yoo xamante ne ay suñuy kilifa si parti bi tey ñoo ko teg mais ñun dañoo continuer fidèle aux orientations du président de la République nekk si parti bi jàpp ne ne dañuy jàppale le candidat Benno Bokk Yaakaar boo xamante ne président moo ko soxla mais tey face à cette situation parce que ay ndaw lañu président rek lañ dem si politique moom mooy suñu kilifa. te duñu jàpp naa ne duñu mës a def lu koy yaxal waaye aussi situation ñu toll tey soxla nañu aussi président déglu ñu soxla nañu aussi président jël ñun dañoo soxla toog ak suñu kilifa moom kese la ñu mën a toogal jamono ji mën ko wax lu ñu métti moom aussi mu jox ay orientation pour que ñu mën a xam ne ñuy taxawee tey soxla ñu kenn ku dul suñu kilifa le président de la République Macky Sall looloo tax ni sabab jotaay bii pour que le suñu kilifa le président dégguñu mën ñu recevoir ñu wax ko ñun lu ñu métti moom it mu mun ñu wax aussi ni ñuy taxawee ñu waxtaan pare mooy suñu kilifa. parce que bëgguñu yegg si yenn situation yi parce que lenn am na quel que soit alpha ñun nekkuñu ay ndaw yoo xamante ni dañuy jëggi wala di beddi suñu parti wala di yàqal suñu suñu suñu présenter de la République donc vote sanction moom bi ko mës a def parce que vote sanction mooy di dem votel koo xamante ne te ñëpp xam nañ ni si xunj gi na koo xamante ne teg nañ ko de Dakar la bëgg a nekk te ñëpp xam nañu son passé ñëpp xam nañu c'est quelqu'un koo xamante ne amul compétence ñëpp xam nañu c'est quelqu'un koo xamante ne jiitu violence la kon Dakar soxloon na liggéeykat mais soxloon jiitu coow jiitu fitna donc ñun lu ñuy def mooy lu ñu bëgg suñu bëbët bu amul bu ñu gisul le président toog ak moom waxtaan ak moom ñu wax ko ñun lu ñu métti waxtaan suñu kilifa ñun dinañ def vote alternative vote alternative mooy am na ñoo xamante ne ay jegeñaale président ñu teg seen i liste fii si biir Dakar ñuy fii di ko doxal dara bu amul ñun incha allah dinañ jéem a xool kenn la siiwaat jabootu président ñooñu ñu jàppale leen ñu jàppale leen pour jàppale leen pour que voix yi mën a dem si président mais ñun moom jamais de la vie ñuy jég di jéggi la famille politique du président Macky Sall di jàppale keneen loolu moom duñ ko def ak quel que soit suñu mécontentement. en insérant en insérant dans ces dans dans sur cette liste sa cour composée de joueurs politiques qui ont une poids plus. qui ne pèse absolument rien, aussi bien qu'au niveau des communes qu'au niveau des départements. Et s'il croit que cette liste pourra faire gagner le département de Dakar, il se trompe largement. Et sanction boobu noonu Diouf sax daf koo utiliser jusqu'au des communes en plaidant non seulement ay nit ñu nekk coordonnateur de nekk tête de liste département communal nekk ay mandataires mais aussi ñooñu utiliser aussi ces mêmes pratiques politiques pervers des camarades, de, la commune des Parcelles Assénie, de Parcelles Assénie, ont subi ces terribles orions par le, maire Moussassi, qui, est le mandataire. La commune de Biscuiterie a subi la même lâcheté politique par le camarade Arnaud Mandofen. De même que la commune de Plateau et dans pas mal d'autres communes qui sont dans ce, département de Dakar. Et nous lançons un appel solennel au président Macky que nous savons la, ce que la Bible a dit, la leçon du grain de blé. nous ont dit, si le grain de blé ne il seul. Mais si le grain de, meur, emporte tous les fruits. Et aujourd'hui, la seule constante de notre alliance, de notre coalition Benebakoya, c'est le président Macky Sall. On lui demandons à ce qu'il prête oreille attentive à ces jeunesse qui a tant souffert, qui a été dans tous les combats, qui a porté tous les combats nobles de la République, qui, qui le défend matin, midi au qui perd tout son énergie pour défendre la peau du président. Mes chers présidents Macky il faut écouter la clameur de cette jeunesse. qui vit dans des conditions extrêmement délétères. Nous très sincèrement qu'il fasse attention et qu'il nous prête oreille attentive afin qu'il puisse recevoir la jeunesse du département de Dakar. Parce que le camarade Ousmane Diagne, il le mérite. On l'a amené au niveau de la tête de proportionnelle suppléant. Et nous savons que la cogère du département de Dakar, jusqu'à présent, s'il continue à vivre, à exister, c'est à cause de lui. Si cette camarade n'était pas là, la, la cogère du département de Dakar serait en lambeau, voire la cogère nationale. Donc, notre camarade Ousmane Diar mériterait au moins plus que ça. Mais nous sommes déçus, le camarade Abdoulaye Nous sommes extrêmement déçus. La jeunesse et il n'hésitera pas de porter le combat et à faire d'autres déclarations et voire même prendre des décisions pour faire des votes alternatifs.